الاج عبد العزيز بي تي وفي نبوتام لولا قاه يا سيد السادات يا منبع الخير سمي عتيق الله لو شيخي ابا بكر يوم نيب شيخو رك لا نيي ها الا جاء ابيب يا سيد السادات جئتك طالبا ميل الوصول لحضره الرحمن ku Maodo jur nga àttan na romb Maodo di tàllal loxo keneen naan ko yow laay jàpp ni bu may yegg yaa may yeggale kooku ku ko wax keneen ba lëfa fa ne waaw waaw te ñoom ñëpp sëriñ Babacar lañ ko wax doomu soxna yi ci réew mi yëpp sëriñ Babacar jommal na leen ñëpp ñëpp ñëpp maa la ko wax serigne falilu Mbàkke radiyallahu anhu bi don won serigne touba mo wax Cheikh tijani ni ko cheikh mu ni ko xam nga lu xewa mu ni ko mu ni ko kilifa go fi deg nak muru sa def lu ñaaw bàyyi xel sa bay babakar motax ndax bañ mu deg ko serigne Cheikh Gane jiko touba moom sëriñ lu mu ni ko bu ma lay nuyoo ndax ndeyjoor bi laa lay nuyoo walla càmmoñ bi mu ni ah, yi daf maa leerul de ndeyjoor ak càmmoñ ndax ndeyjoor lañ daan nuyoo waaye lu tax nga laaj ma nday joor ak càmmoñ nag mun ko man kat sama yëpp dama ko sedde te sama ndeyjoor bi kat sa baay Babacar laa ko séddee woon moo ko moom te nag càmmoñ bi damaa gisul keneen ku ma ko seddee yow laa ko bëgg a séddee sëriñ Faliilu Mbàkke Cheikh Anta Mbàkke en tubaab yi la jël ko posé ko problème yu day niñe keroog sëriñ Babacar sol lam pour régler ji ba mu ko réglé ba yépp ni cocc daf ko ni man duma la wayal sama bopp ndax manuma wax li ma bëgg woo Moussa Ka ni ko wayal ma sang bi Moussa Ka wayal Cheikh Anta Mbacke Serigne Babacar di ko wax wahal misbarun wahal misbarun fawqa alqaratisi yaksibu وهل مذبر فوق القراطيس يكسب يكسب مياها كسكب من سحاب ويكتب ويكتب آه. وتلتطم الأمواج من لج فكرتي كما يزبد البحر المحيط ويضرب كن مسهوليس دي لمدح أبي بكر خليفة مالك درده النواحي شرقها ثم مغربه يجدد دين الله بعد خرابه لدى الغرب لولاه المساجد تخرب ويحيي قلوب الناس بعد مماتها بورد وقرآن وعلم ويقرب ويؤلف بين المسلمين قلوبهم ويأمر بالمعروف ما هو يلعب جزاه إله الناس خير جزائه بلا الكيل والميزان من خير يكتب mu ne ah li ma metti day moom waykat bi mu ni géeja ma man moo sañ jël duusam mu fudd dóor ko ci tefes gi nu mu ko neexe waaye aka neexoon sama xalaat di duus tey ma mën ko fël dóor ko ci ci biir kayit gi mu génn li ma soxla wax ak Babacar waaw wax ak Babacar mi doon nu Malick mu di koo koy waxat ndax penkoo la ko gën a xam soowoo la ko gën a xam waaw te nee na ku ñu ko tuddal nga xam ni turandoom ba donnoon yonent bi fa mu jaar ba donn ko moom it def na lu ne day ba donn Maodo mu ni booleeg sago baak lewet ja nag ak xam-xam ba kenn mësu koo xamee caaxaan nee na tey jii diine yàlla bu dee dox ba léegi Babacar ca teg loxoom mu ni fii ci sowu jant di budul woon ak moom kon jàkka yépp gent na mu ni tag ku sa xol deewoo nit Babacar a ko dundaatal moo la jox werd moo la jox alquran moo la jox xikamam te nga dund ba léegi yëgatuloo dara te nee na li waroon a yàqu yépp Babacar defar na ko kon lu fa des nañ ko bàyyeeg yàlla moo ko mën a fay waaw waaw Mor saa su mu jël doomu alqaadi ma jaxate kala ñoom ñëpp ay doom yu soxna lañ ñëpp ñëpp ñëpp ñoo mujj di géwalam waaw ko wax laka laka ya aba bakrin fadailu yaqsur an wasfihi dhihni alladi yatafakkaru waaw di wax ni ko inna siyadata bada mawti abika qad nuqilat ilayka li xikmatin hiya akbaru lu tax ndax lawlaaka lam yashid alshariata waxidun bada irtixaali abika man huwa afxaru di ko wax ni ko ni nga mel ndax sama xalaat yegg na ci yaatu mën koo wax ni ko mënu ko ndax xalaat dafa am fu mu yem te ni nga mel amul fu mu yem mu ni ko waaye li ci solo mooy xilaafa gi sa bàyyi yoroon bi mu fiy jóge kenn laam-laameewul ndax di seet ndax am na ku ko mën a yenu te ñépp seen xel jàppoon na ni Maodo bu fi jógee Babacar a ngi fi waaw mu ni ko tax kenn ëpp la ci nag yaa boole mérite yëpp ni ko nag tey yaa sa bàyyi bu tedd bi am nga am na lu ngeen ñu fàttali waaw ni ko ndax sa bàyyi Maodo bili ku ko tudd sa xel dem ca Malick mu jëkk ma mu ne ko na ko waxee nopp ku la tudd xel mi dem ca xuncu ba إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن آه، مانيك أبو بكر الصديق مصطنغ كنك داشنغالام